ànd ak Bass mi nga xam ne suma xarit la mu yëg bis bi ma ak man ba ma àndal ñëpp di leen sant di leen gërëm xam naa daal Soumboulou nit ku baax la et puis suma rakk la. waaw li yaayam rek na ko sëy li yaayam sëy bu ko am li mu bëgg si biir sëyam parce que sëy moom ñëpp xam nañ ne rek moo ko yor te yàlla na ko may xolu muñ jëkkëram te si yàlla may ko xolu muñ yàlla jubale leen yokk seen wërsëg ñoo ngi ci njaboot gu barkeel. ku ne xam ne ñu ci weeru safar daaw nga am loo defoon ren lu ñuy xaar ci Balla. waaw man taalibe Serigne dañ koy def ko daan defee ko def juróomi fan ren looy dig looy dig ñi nga xam ne soppale mais Balla Balla Balla ren sëñ bi Balla ren sëñ bi. waaw euh, Soumboulou vraiment euh, dafa doon jigéen ju baax vraiment mu nekk koo xamante ne euh, bañ xamante ba léegi yàgg na ah donc bés bii dañ ko ko souhaité woon te am na ko xamoon nañ ne bésam day rëy donc dañ koy encouragé di ko félicité di ko wax heureux ménage di ko xam ne nag jugu si nag la cour des grands <laughs> waaw. nga xamante ni jigéen ñi nga xamante ni comme Soumboulou lañ nekk nekk ci milieu actrice bi lan nga leen di wax pour ñu mën a def lu Soumboulou waaw dama leen di wax rek suñu teyee ñu dal dinañ topp si tànku Soumboulou dinañ am bés bu rafet te jii nii lii lay prouvé ne nga nekk si milieu bi. nga liggéey fas jom saa nga dugg si yu ñàkk fayda ça ne veut pas da nga nekk si milieu bi rek foog nga pasa pasare sa bopp pour génn si donc Soumboulou c'est un parfait exemple comme tamit ñun yeneen actrices yi nga xamante ne yor nañ ko au sein de notre production te si loolu yoon boobu rek la ñeen di teg quoi